xamal ne lundi ba la ñu génn fukk ak juróom-ñeenti xale yu dëkk Ndakaaru ak juróom-ñett fële ca Bignona état Sénégal dañ dañ dañ leen sekestre jàpp leen ci lu tegul ci yoon xañ leen seeni àq ak seen yeleef loolu bu weesoo dimanche bi weesu coordinateur Pastef Dakar Abbas Fall ak suñu jigéen Fatim Meng mi toog nii demoon fële sa Cap Manuel ngir yóbbu ay lekk ay yére ak ay mbàjj xale yi nga xam ne dañ leen fa téye dig fekk leen fa jël leen ci doole yóbbu leen téye leen bés te waxuñu leen li tax ñu téye leen fa ginnaaw loolu ñu bàyyi soxna Fatim waaye Abbas Fall di coordinateur Pastef Dakar bokk ci copil bi ba tey mu ngi ñu téye foofu téye boobu nag teguwul ci lenn ndax waxuñu ko lu tax ñu téye ko fa démb ñun ñëpp gisandoo nañu soxna Birame Souleye Diop di administrateur parti Pastef doon liggéey yi bàyyi njabootam bokkul Pastef politikul ñu fekk ko fi muy liggéeyee not ko jaay ko doole yóbbu ko dig boobu ba tey mu ngi foofu démb ba tey ñu xañ ko njabootam yore njaboot ju sew ñu ne ko doo fi jóge te waxuñu ko lu tax ñu koy topp loolu nag xoxotal la xoxotal boobu nag newul lu bees fii dëpp bi ma fi Macky Sall nekkee 2012 ba tey ndax moo fi toog ne képp ku jàmbaar la ak moom am xalaat bu wuteek moom dana fexe ba dootoo waxati loolu nag mu ngi koy doxe di xamal askan wi ne doxal boobu su antoo jëm ci opposition bi su ci noppee ci presse bi la jëm mooy tubaab bi naan musulman ndax moom jàpp na ne xalaatam rek a rafet gis-gisam rek rafet mu jot nag ñu artu kilifa yi di artu mbootaayu droit de l'homme yi ñu xeex ak ak yelleef nit ñi ñu wax ci di artu ñi nga xam ne ñoo fekk nekk ci bitim réew ñu wax ci ndax tak ku artuwul di nga àtte ndaxte li ñuy ñaan Macky Sall ak programme bi nga xam ne newu fi lu dul bëgg-bëgg président Macky Sall lay doxe te bëgg-bëgg askan yi nga tax ñu koy fay doxewu ko jëfewu ko ndax gannaaw bi ñu jéemee teg ñaawteef di diaboliser président Ousmane Sonko nga xam ne depuis 2017 ba tey ñu ngi ci ñu jël lu ñàkk fayda jéem ko koo taqal dem ba ci biir ñu ñëpp ñu seetlu ko bés bu nee ñu wanee ne taqal boobu ab nar rek la ak sos kese lépp di wàcc lépp di daanu ña ko naroon ñu bàyyi leen ñuy dox ña ko doon jéem ñu bàyyi leen ñuy dox ka si woon xale bu jigéen ba di Sidi Mouhamed mbay di jarbaat ci Maodo Malick Mbaye bokk APR bokk benn Bokk Yaakaar ak médecin bi nga xam ne moom la àndaloon ak avocat bi nga xam ne moo bindoon loolu ba tey jii nii kenn terewu leen ñuy dox kenn dégluwu leen ci mbir mi ñu jommi xamuñu nu ñuy def xëy na dañuy dem assemblée. xëy na dañuy def assemblée ne ko yëkkatil malaanu kiirlaa ki nga xam ne x la mooy ku ñu xamul ba pare wax ci suuf ne Ousmane Sonko la loolu yëpp di ay di ay naxa sa di ay yëfu yoo xam ne wax ku daanu seret nga xam taxawul kon ñañu waroon topp xam nañ leen waaye jéemuñu ko ñu xam ne loolu askan wi xam nañu ndax askan wi seen xel seen gis-gis ci réew mi léegi ñëpp la leer ñu xam ne loolu taxawul ñu ne kon nañu soppi loolu jéem a wut ay pexe naan dañuy jéem a daaneel yëg dañuy jéem a insurrection dañuy jéem a kii te ci constitution Sénégal dafa ne ku ne ci ñun am nga droit mobiliser wu ku ne ci ñun am nga droit résister suñu la tegee loo xam ne attanoo ko kon ñi ñi woowaat réew mi di wowaat ndaw ñi Pastef les patriotes di exiger ñu bàyyi xale yooyu ñu bàyyi suñu coordinateur Abass Fall ndax fa mu ne du place am fa mu ne mooy xamal askan wi réew mi naka lañ koy war a yore ñu bàyyi soxna jàmbur bi nga xam ne njabootam soxla nañ ko ñu ngi exiger justice bi procureur Bassirou Gueye ñu ngi koy exiger mu bàyyi leen te di woo ñëpp ñu taxaw jonn nekk benn say ngir xeex li nga xam ne du yoon te teguñu ko fenn te ñu taxaw wane suñu bopp Pastef Dakar ak FRAPP Dakar ñu ngi wootewaat di artuwaat ndax fa ñu jëm fa ñu jëm du neex